na politique générale groupe parlementaire ya ku nekk yaa ngay xëcc sa boor di ca yëkk moo xam tey ji alliance la république booy xëy daal fàng ca ci ko yëglekaay mu mel ni jamono ji ah, la ñuy def daal moom mooy gën taxaw dooleel bureau bu assemblée nationale Abdoul Mbow moom nag génn na fëgg ca taabal ba di xam ne daal ne ah, moom jamono ji daal la ñu war a def ci règlement intérieur ba daañu ko ca def waaye waruñu daal la taxaw di xam ne ni am na ab faux règlement intérieur boo xam ne daal ma nga ca assemblée nationale ab institution la boo xam ne moom moom na boppam Ousmane Sonko nag warul taxaw fii daal di xam ne ni yëf ya jaarul yoon loolu moom war a def daal moom mooy taxaw ah, def ab déclaration de politique générale am te xam ne daal moom mooy élimaanu jëwrin kon nag na jox gëdd suñuy institution bokk na ci li nga xam ne ah, moom moo ngi ko cay wax waaye ci ah, njeextalu journal bi jàppale ne Amadou Ba nekk député yu askan wi moom nee benn bokk yaakaar daal moom ma ngay lakk loole di loi organique ba jëm ci wàllug loi de finance jamono ji daal bu ñu ko xayma ci tukki yëglekaay bi nee na daal ci ban réew la ñu nekk bokk na ci laaj bi nga xam ne moom la daal di samp ndaxte ne na ab uh, crise uh, bi nga xam ne daal ñu ngi koy waxtaanee loole ab uh, porox ndollu la bokk na ci daal loo xam ne gis na ne ñoom ñii di waa Benno dañ ci rek bëgg a làkku Moussa Tine moom na daal moom songu na Ousmane Sonko ba noppi rek di tàllal loxo njiitum réew mi di Bassirou Diomaye Faye nee na nag dialogue war na am maanaam ab waxtaan foo ñu daal di ko sumb loole wara nekk daal ab waxtaan boo xam ne daal dana nekk waxtaanu ko politique waaye bu jëmale suñuy institution ca kanam Sénégal ginnaaw nag jafe-jafe yi nga xam ne daal jot na ko dund la mu gis jamono ji moom mooy war nañu ko waxtaanee ngir rek yëf ya mën a jëm kanam la tribune yéen kaay moom ci coow daal nee na Benno dana fere ne kii di Bassirou Diomaye Faye ci li nga xam moom mooy taxawaayu ko tas tasar assemblée nationale ci loole yéen kaay nag nañu dana am ab bataaxal maanaam ab leetar boo xam ne daal daañu ko ko yónnee moom njiitum réew mi ngir rek wax ko lan mooy xew jamono ji foofee ca pencum ndaw réew ma waaye ah, moom Bassirou Diomaye Faye mi jiite réew Sénégal daal jàppale nag ne dana am diir bu toll ci juróomi fan ngir nag joxe ca ab gis-gisam Abdoul Mbow xëyaat na newaat fang ca tuk koy koy xayma la mu fay waxtaanee moom mooy député feeto ca benn Bokk Yaakaar ñoom daal ñu ngi bu baax a baax soobu ci seen ak projet jamono ji proposition de loi la boo xam ne ñu ngi ci wàllu ah, mbind ma session extraordinaire boo xam ne tam ñu ngi koy waaj a sumb ngir amal ab examen bu fekkente nag Diomaye bañ na rek lank ndaare ne du promulguer bi ko loi njiital assemblée nationale di Amadou Mame Diop moom mën na ko def ak yenn ci ay conditions kon mu mel ni euh, le témoin yéene kaay tam dégg na coolole ba xëy ne ko fàng moom Amadou Mame Diop ak Ousmane Sonko di limaanu jëwriñ mel ni diggante primature ak assemblée nationale daal yëfi xale kott la ñu nekk di def ci kaw réew ka Sénégal la Ousmane Sonko newaat tamit xëy na fàng cawtu ka le quotidien le quotidien yenn ci ay nomination ci wàllu ko conseiller mu daal gouvernement bu primature bala bu ñu koy xayma Ousmane Sonko désigné na rek lu toll ci ñaar fukk ak benn ci ay référent ci ay ministre Ousmane Sonko communication tey jii nii lii di l'info moom moo koy jàngat ginnaaw nag ba mu ñëwaatee ci loolee di eh, taxawaayam ci néganik opposant eh, moom naka la doon taxawee rek di mobiliser maanaam nag fexe ba askan wa man ko di ko wuyu si ko déglu ci coow li nga xam ne daal mu nga coowoon digganteem ak Macky Sall Ousmane Sonko la rek ci wàllam ba mu ko xayma tam loole eh, def na ko ca boru Grand Théâtre daal di ko def tam ci coow lu muy waxtaanee mbirum reddition des comptes dellu si waat tam ci lépp loo xam ne def na ko ci coowal euh, lii di Colobane rawatina Anse Bernard waaye loole moom moom moo ko wax waaye euh, le peuple la mu xëyatee daal ne ko fàng tey ji ci xëtam mu njëkk bokk na ci daal mbirum euh, sophisme na mu koy waxtaane Ousmane Sonko daal ay ndaxa saxandankoot la fi nekkee ci réew Sénégal loole ay naxe mbaay la loo xam ne la peuple xëy na ne ko fàng ba noppi rek duppee ko koromaak buñ koy xayma ay foofu yan la na mu ko duppee Ousmane Sonko nekk koo xam ne daal moom saa su jógee daal muy def moom mooy wax rek ngir seetal deram jamono ji daal la koy weddi bokk na ci ab circulaire bu tukkee ci ministre de l'intérieur ci coowal kolobaan yi lekk marchand ya ah, moom élimaanu jëwriñ nag dafa mel ni daal dafa xëyoon rek ngir daal di soppi xeluk askan wi ngir rek ñu daal wëlbatiku jëm ci leneen waaye terewul jamono ji askan wa mer nañ ba futtu ginnaaw nag ba ñu seetloon a ñenn ci ñoom ñu ngi leen cay yëkkati mu mel ni Ousmane Sonko nekkeewu fi dara dul daw ay responsabilité euh, la mu xëyatee ji ne fàng ca tamu njëkk bokk na ci euh, lii di njiital Fass Gueule Tapée Colobane Aziz mi nga xam ne daal nee na indi na daal ab coow ci loole di problématique premier ministre beeg ah, loole ah, di ah, circulaire ba mu ne moom yëgul sax fa yëf ya daal di tukkee moom nag nee na loole ba léegi mënu koo ndax te daanaka wax ju yéenuwul maanaa la bu ñu sukkandikoo ci moom moom nag dellu si watam ci mbiru occupation anarchique bi daal di xam ne ni mairie bi kenn mënu ko dut baaraamu tuuma ci li nga xam moom moo jëm ci ndàmpaay jox ñooñe Cheikh moom la mu xam ne daal moom mooy ah, jamono ji daal mënuñu taxaw daal rekk rek jël la ñaaw yëpp teg ko ci kaw deru ah, yile caméra boru ko RTS mu ni daal la fay xeeñ neexul benn yoon Dakar Presse yéen kaay nag nañu jamono ji rapport ya diggante njiit lu sa di papale ñaw ak yenn ci délégué personnel ba daal dara neexu ca mu mel ni daal tàq-tàq wala boog yëf yaa ngay saxaar ca boru ko RTS bu ñu sukkandikoo suñu naataango yi nga xam ne nee nañ Pape Alé Niang daal ña as askan wa lañ ca gis dafa mel ni dafa ñëw rek ngir saboté loole di rajo télévision nationale ndaxte jamono ji waxtaane rek juróomi million yi salaire yi nga xam ne am na ko la mu def daal moom mooy ñëw rek euh, tere juróom-ñetti téeméer ci ay agent yi nga xam ne daal ñoom amoon nañ avant su tabaski loole lépp moom Pape Alé Niang def ko rek dagg teg ko fële lay tamit bëgg a wàcce ñenn ci agent RTS ci li nga xamante ni ñoom jotoon nañu am seeni droit ay at a ngi nii boobaak léegi ñu koy seetlu source ay yéenekaay sax moom xëyaat na tam waxtaane coow lu nu mel nañu nag accord maanaam déggoo bi nga xam ne daal déggoog entreprise la ca RTS tam la ko dakkal waxtaan nañ ci xëyte tey jii di ñu nettali taarix bi nga xam ne daal moom moo jëm ci bi lekk yokkuteef bu ñu koy xayma SYNPICS section RTS ak CNTS ñoom ñoo nekk ñi nga xamante ni daal ñoom ñooy syndicat yu njëkk yi taxawoon daal daal di aar bi lekk accord d'entreprise loolee ca atum 2022 la woon ci euh, coow loole nag jàppale ne syndicat national bi ëmb mbooleem professionnel yu audiovisuel ci wàllug public moom ci noonee la daal di juddo laata nag moom moo euh, jël bile ko dossier la nga xam ne nag moom la ci Racine Talla dëxëñoon laata rek ñu daal di xaatim bile ko accord tam yéen a kaay yëpp desandi na di ko euh, nettali ji ci xëtam wu njëkk. wàllum ah, njàng mi Sud Quotidien ni kaay nag nañu ndongo ya jamono ji ñoom ña nga rek ca salle de classe ya ngir amal loole ah, di ah, épreuve yu baccalauréat ren ji nag teef yi tey ji lay tàmbali lim ku takku la nag ci ndongo yi nga xam ne ñoom fase nañu ko wutali épreuve yi écrite yi nekk nekk loo xam ne daañu ko door na ngeen tey ji bu ñu ko xaymaa nag loole di centre d'examen ya daanaka rek ëpp na ñeenti téeméer ci fii ni ñeenti téeméer tam ëpp na ko ci wàllu ko jury yi nga xam ne jot nañu ko composé fii ci réew ko Sénégal

tàggat yaram Coupe d'Europe Kylian Mbappé euh, Cristiano Ronaldo daañu jànnoo ci loole euh, di wàllu quart de finale bu Coupe d'Europe loole di fàtte rek finalu Euro ca boru Stade de France Portugal amoon fa ndam benn bal ci dara but ba ko dugaloon moom mooy Eder Euro bi ñu nekk bokk ci waaye daal terewul xel yëpp ñu ngay dellu rek ci loole euh, di ndajalu mag li nga xam ne ab daj dëpp la ci bile ko Coupe d'Europe bu ko weesoo daj dëpp tam am na ca boru ko la diggante Brésil Vinicius Junior nar a janoo ak Colombie bu James Rodriguez yëfe nag nekk ji jongante bu mag boo xam ne daanaka coow la ca laxasu bëri na lool ay chat lii mayul seen i kaay xëy fësal ji ci jàmm ak salaam Grégoire ñu la yow tamit. merci beaucoup ñu joxante dig daje ba ëllëg incha allah. ci yeneen yéen kaay. Ngom ñu jaajëfal ko bu baax a baax mbokk yi des leen ñun dañuy.